Chocobo, Nancy, Sophia, Neway, eh Ndeysaan. cosaan la neex cosaan dafa neex cosaan dafa neex cosaan la neex Nancy, Kasumay. ministre sasi mɔlɔ ye esi bɛ tɔku bɔ tɛsa tibijɛlɛ ti tɔ esi bɛ. waaw équipe nationale bi war dem Qatar waaw xanaa di ñaan rek di leen ñaanal di ñaanal ñëpp ñu nekk ñu nekk en en bonne santé nekk si forme ngir buñ demee foofu ñu mën ñoo taxawal taxawal suñu réew dignement incha allah te am nañ yaakaar ci ñoom incha allah rek. waaw di leen encouragé di leen wax euh, football moom bu ngeen bu ba dugg si terrain bi rek. Euh, amatul amatul euh, tour amatul kii maanaam sa sa dëkk ngay ngay ngay ngay ngay représenté te ñoom xam nañ loolu donc yaakaar naa kenn dootu leen ko wax ndax dem nañ andil ñu Coupe d'Afrique donc xam nañ euh, tournoi ni muy demee. maanaam euh, nañ leen ñaanal wér yaram rek nañ leen ñaanal wér yaram ba nga xam ni ak seen xel bu bu mat ba nga xam bu demee dinañ teewal réew mu baax incha allah. non mondial bi nag mënaguma pronostic parce que seetaanu ma équipe bi xooluma sax équipe yi ñan lañ jël ñooñu ko waaw. non d'abord nuyu ñëpp ku ne sa tur ak sa sant avant may wax ci waxu équipe nationale avant. il faut ma remercier waa Pout parce que c'est pas évident dix jours ñuy jóge ko daanu ci lii ba tey jii mu aboutir nii ci fin bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax na alhamdulilah rabbil alamin pour le problème mu Sénégal maanaam Sénégal kenn kenn waxatul ay waxu Sénégal ci coupe du monde parce que ñëpp a ngi koy xaar tubaab boo wax mu ne la Sénégal mooy équipe la l'équipe la la plus dangereuse. donc loolu rek déjà am nañu benn point donc li des mooy ñu teel a defaru teel a entamé match yi parce que c'est très important coupe booy jouer tournoi premier match dafa important ñu am ci victoire wala ñu am ci nul daf ciy baax. pour ñu gën a mën a relancer wu te gëm naa ni. est-ce que yaakaar nga ni moral bi dina baax parce que le cas de Bamba Dieng ak yeneen ak ak soo Saliou Ciss. Mhm. Euh, ils sont am amuñu compétition est yaakaar nga ni suñu suñu leen ci équipe nationale bi mënuñ ñu comme avant. waaw mais xam nga football dafa bëri aspect. Euh, du li ngay gis ci terrain bi kese. dañ ñoom bu ñu ñëwee ça ne veut pas que ni mën nañ ñëw rek ñu titulaire ça ne veut pas ni lii mais bu ñu ñëwee rek am na lu muy def ci groupe man nag euh, mënuma di wax euh, euh, pronostic aayuma ci li may wax daal mooy maa ngi ñaanal suñu gaynde yi ñu dem ba fu fu ñu fu ñu fu ñu mën a yem ba fu ñu mën a yem loolu laa leen di ñaanal ñu sori ba jël ndam li loolu daal moo ne sama xol. Sénégal demi-finale wala finale. tax demi-finale. fu ñu mën a yam kañ du finale moo ñu fa yóbbu. ah mën nañ dem ba finale moom. ñu demee ba finale nag yàlla moo xam. waaw man de loolu laay ñaan ñu indi ndam li. mais du lu ñuy wax metti na trop mais gars yi xamante nañ. ñu ngi déggante xamante nañ bu baax. non mondial xam nga demoon nañ. bii dañuy dolliwaat rek. non ñoom ja joueurs yi gars yi ñun xamante nañ gars yi jaru conseil xam nañ leen di xaar coupe du monde waaw gars yi xam nañ ko. <laughs>